nañu libeere doomi jàmbur yi ñuy jàpp ci lu dul dëgg te bis bu ne seeni ñooñ ñoom taxaw wax fi lu gën a garaaw loolu fuuf saaga fi ay nit sosal fi ay nit te déggu leen ñu munoon nañ suñ ko defee xam ngeen ni ñun ñoo yor ndawu senegal ku fi wax loo fi warul def walla nga nga nga def loo fi warul def munoon nañ la fekki sa kër diggaale kook yow te kenn mësu koo def parce que yarewuñu noonu te procureur du leen woo